alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi waxaadani illay bitaani min baadi ma sabab taxayri wa jarrani fi ilal ulum wal fawzi wal amali bil ma'lum summa salaatu bi salaamin tabia ala allasi xafiya ana tabia على الذي من بمراد اهتدى في سر والجار يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فزان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير ولا سفيع وآله وصحبه النبيين الخاعر النفوس والرجيم فساويني اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا تحاب وإنني يا بر يا كريم لا ينوى عن سكوت لا يموت منذ جسبتني إليك يا معين عناية إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك أمري معادلا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك فجدت لي اليوم بخير مني وخدتني إلى اختفاء سنين من بعد ما قدمت داء الناس يدخلني في سرك الخنازير وكدت للأمداء والإكرام أسد في تالف والإخراع وفي التعلم وفي التعليم وفي اتقال بحدى معلوم فقلت ذا سبر وسا توسل بالمصطفى سفي عين الرسل وببنيعي وبنات ما ليسع في سريع الأجمال وببنيعي وبنات ما ليسعوا في أسر على المال يا بر يا غفور يا عليم إني أخور دائم مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالك يا خالق الأنام هب نوايا على المنام يا مالك يا خالق الأنام حمدنا ويا خليل المنام يا خالق يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأغنني مرامي منك روم اليوم أن نكون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 Muntaqa di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te tey jii nag ngir indi sunu barkeelu ci sukkaru koor yi nga xam ne aada woon nañ di ko fi indi boobaak léegi léegi mu mat fukki at ak juróom mu nekkoon ni ngeen ko xamee mu doon yoon wu sew ñu tàmbale woon ko ci benn saako waaye alhamdulilahi rabbil alamin liggéey bi di màgg ngir nangu gi nga xam ne moom la ko suñ borom nangu suñ borom it defal na ci lu kawe suñu njortu ren ji alhamdulilahi rabbil alamin Euh, am nañ daanaka lu jege une tonne cinq cent matoon na lu man ñaari tonne jàpp ñetti tonne waaye ñu xam ne yitte ji du suukar kese am na yeneen i yitte yoo xam ne euh, war na war naa am moo tax bi ñu wutee suukar wut limu Tuubaa muy ñaar fukki saako ak juróom-ñett ñu wut téeméeri junni teg ko ci ngir mu nekk kafe gi ñu jébbal si woon ko tey ji ànd ak jëwriñ ñi nga xam ne ñooy mboolem jëwriñ ñi liggéey bi te Serigne Jili Mbàkke mi nekk ci bopp bi ak mboolem daayira Maam Jaar yi nga xam ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi ak yeneen mboolem kuréel yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biti Kaolack te ànd ak ñun biir liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp Sénégal bu bitim réew képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi na nga xam ne sëriñ bi gis na ko sëriñ bi sant na gërëm na nag sunu sant ci mbooloo mi li yonente bi sallallahu alayhi wa waxoon ne benn tibb boo xam ne nit ki yëkkati na ko jox ko nit ki woor nee na moo gën àddina ak li ci biiram ne benn tànku ndox boo yëkkati jox ko ki woor eh, moo gën àddina ak li ci biiram bu ñu sañoon lépp loo xam ne jëm na ci kër sëriñ bi ci ay xéewal weeru koor gi yëpp noo koy def waaye nag nu feeñal suñu yéene te xam ne am nañu yéene ju ëpp lii waaye ñaan sama borom mu may ñu kàttan ñaan sëriñ bi mu gàttandul nu boppam ba fu ñu bëgg liggéey bi yegg nu mën ko faa yeggale. noo ngi sant tey gërëm di sant ñëpp bu ñu limee rek dañuy juum dañuy jox seen jiili su ko defee mu yeggale li des ci kàddu yi. nuyu mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne noo ngi nuyu di ñaan yàlla liggéey bi ñaan gi ci sëriñ bi ñaan lépp yàlla na dal bokki taalibe yi li ñu ci sëriñ bi tànnalit yàlla bu nu may yàlla na nu dugalal boppam ci lépp eh, xam naa cant gi moom dañ koy delloo rek sëñ Moustapha mi mooy cant ci turu mboolem bokki taalibe yi nga xam ne ñun ñoo ànd ak ñoom nekk ci seen kanam ñu ànd di liggéeyal sëriñ bi moom mii muy sunu jëwrin sëñ bi boole ñoo ak moom mu jiite ñu jiite anam wax dëgg yàlla lool liggéey wan ñu nan la ñuy liggéeyale Sëñ Tuubaa kon nag cantuk mbokki taalibe yëpp Mbàkke ñu ngi koy jooyalaat di ko jëmewaat ci sa jëmm ji di la ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ko wér ba naal yi nga am yéene liggéeyal Sëriñ Muntaxa lépp nga def ko ci sa teeg bakkan te ànd kook nun ñëpp barkeb sëñ Tuubaa nun ñëpp bég nañ sant nañ bu baax di ñaanal sëriñ bi itam mu uh, aw fanam dollee gudd bu baax a baax a baax te ay cëram wér lool ba naal yim yéene lépp ci liggéey bi mu matale ko te ànd kook teeg bakkanam te ànd kook mbokki taalibe yëpp ni ko mbokki taalibe yi woore yàlla na woor junni koor tele suñ borom telewu ko yàlla na ko defal ci barkeem kon ñu ngi santaat bu baax a baax a baax a baax liggéey bi moom nii rek la comme nii nga nu ñëwee ñu indi suukar si euh, ayu bis bee weesu it noonu lañ indee woon dugub ji nga xam ne moom la wutoon ngir ñu defal ci cere yu jëmoon ca Poroxaan bokki taalibe yëpp ànd ko mbooleem dëkk yi nga xam ne ñoo wër Kaolack ak waa Kaolack gépp ànd ko ak sëñ Moussa ñu dajale ko doon ko waajale màggal gi far yàlla màggal gi nu bàyyee ndeegum ko sëriñ bi ne nañ ko indi ñu boole ko ci liggéey yi nga xamante ne ni moom la ñuy joxe ci koor gi keroog biñ ko indee itam sëriñ bi yebal ñu ñu ñëw sëriñ bi lam ñu wax mooy liggéey bii de bu incha allahu taala njabootu sëñ Tuubaa laa koy jox njabootu suñ Tuubaa gi loola dal nam xel baax a baax a baax kon liggéey bii nga nuy woo di ñu ci liggéeyloo di ñu ci xiirtal dal na sunum xel te it am nañ ci yaakaar bu baax ñoo ngi ci takkaat sunu pas-pas fas ko yenee ànd ak yow incha allahu taala jërëjëf sant nañ bu mbooleem mbokki taalib bi yëpp nag góor jigéen mag ak ndaw ñi dëkk Kaolack ak ñi dëkk bitim réew ak ñi ne feneen fu ñu mën a ne te jàpp ci liggéey bi sëñ bi sant na nun ñii di seeni i jëwri nekk ci itam sant nañ bu baax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh